suivre ci ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar waaye di ñaanal axlu bayti Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam nga jiitu gi yëpp yal na yàlla yokk seen leer tataasu seen barke di ñaanal axlu bayti gii fi nekk yal na leen fi yàlla bàyyi te yokk seen wër yàlla sàmm leen yàlla làq leen fu yàqat eggul waaye di jiital si nuyoo yeeg ziar yi sunu sang Seydi Mouhamadou Makhtar di ko ñaanal mu gën fee yàgg te ànd ak wér ñu ngi fii nag Cambérène yamoo ak 19 février 2022 jour bi nga xam ne moom la vision 129 ñëw di ko nettoyé kër xaalif bi dañuy dem euh, découvrir lan mooy vision 129 te dellusiwaat. Euh, mbokk yi ñuy suivre ba tey euh, ci lu bees Lou'Bess TV ñu ngi leen di nuyuwaat di leen jox seen i ay wàccuwaay ñu ngi fii nag ak président organisation vision 129 ñu gën koo xam ti Chérif Pambay Laay Thiaw ibnu Seydina Maam Alassane Laay sang ñoo ngi lay nuyu. waaw ah, bisimilahi rahmaani rahim ahousubillahi mina seytaani rajim alhamdulilahi rabi alamin maa ngi leen fay bu baax di nuyu mbokki jul yëpp. jiital nuyoo bi sunu xalifa Seydina Mouhamadou Mokhtar ibnu Seydina Mandione ak njabootu Baye Laye gi topp si ginnaam gi yëpp. Euh, sang kon nuyoo yi matale na euh, sang mën nga ñëwaatal ci historique bi vision 129 lan mooy vision 129 lan moo tax ngeen choisir euh, turu vision ba pare jël chiffre 129 teg ko ci. waaye vision 129 daal li ka waraloon mooy que dafa bëggoon a dajale njabootu Seydina Limaamu loolu moo njëkk mooy part bi njëkk si biir vision 129 pour njabootu Baye yëpp xamante ni créé defoon ko ay tour de famille. Euh, njaboot gi di demante kër gu nekk ni dem fa def fa tour de famille ba ni yàlla ni def ko association boo xam ne dafa dem ba 2018 si leen créé nouvelle dynamique bi ñu créé nouvelle dynamique boobu dafa ñëw pour changer mentalité euh, communauté bi pour ñu xool loo xamante ni fi mag ñu tegoon seen tànk ñun ñu fexe ba loolu yokku daal waaw. léegi bëgg naa xam léegi dama la dégg nga ni tour de famille maanaam vision 129 dafa regroupé famille Seydina Limamou maanaam non non yamul si lu bay bi parce que bi ñu koy door tàmbali si axlu bayti bi la yemoon mais bi ñu demee ba nga xamante ni famille bi ñëpp xamante ne seen biir après di commencé dugg si mbiru diine ji pour liggéey lanu yaatal mbiri uti ay branche maanaam ki am doole ñëw ki am xaalis ñëw ki am xam-xam bi ñëw te vision cent millions tey boo fa duggee a des yoo xamante ni ñii ay transit leen ñii ay directeur banque leen ñii ay responsable si yeneen ni entreprise yu mag leen nekk si dëkk bi ñoom ñëpp bokk na vision cent millions parce que li ko waral loolu mooy bi ñu demee ba xam ne diine Seydina Limaamu gii lépp mën nañ ko changé maanaam mën nañ changé mentalité yi changé communauté bi ba lu rafet lu nu war a gis xam ne si biir communauté bi la war a rafetee Viviane na si la dugal loxoom na tey si événement si yi am yëpp si diine ji tey appel Viviane Sabine loxoom mu ngi si 100 pour cent gàmmu gi Viviane Sabine loxoom mu ngi si ñaan yi fi am diggante ñaanu Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ba ñaan bi mujj si ñaan yi wasa dëgg na yàlla amul ñaan guy ñëw te Viviane Sabine taxaw si. Euh, noonu la Vina Savine nag yaatalee nag am jël taalibe Laayeen yëpp nag dugal ko suñu biir léegi yematul léegi si ay tour de famille ak euh, entre famille léegi dañu dem ba jël taalibe yëpp def leen suñu famille parce que Baye Laay alayhi salaatu wasalaam ay saxaabaam rek noo nekk si àddina te ñun jàpp nu saxaaba Laay yi ne ñun leen gën parce que maanaam du ne ñun daal nooy sëriñ si rek taalibe yi war a liggéey bàyyi ak euh, sëriñ si déedéet ñun dañu jël lépp yaatal ko ba nga xamante ni tey Vision 129 képp koo gis si diina ji rek xam nga ne am na taxawaay bu rëy Euh, dama la dégg léegi nga ni seen i ay activité waxuma la appelu Seydina Limaamu bi nga xam ne moom la nekk nii di waajal waaye gàmm ba ci ñaan yëpp yéen da ngeen koy couvrir léegi da ngeen dem ak seen propre moyen wala da am ay partenaire waaw Vision 129 nag euh, bi ñuy door a tàmbali dañ demoon ak suñuy suñuy moyen lan demoon euh, boo gisee lu bëree bëri bëri bëri ñun noo ko doon débrouiller suñu bopp parce que mooy li ma la wax suñuy cotisation maanaam Seydina Limaamu dañu jaral lu ne ba maanaam bi ñuy defar parce que association wax sa dëgg na yàlla du may leen ma ma maye te tey Vidéo boo xoolee euh, ma def ko entre parenthèse social bi muy def maanaam moo ngi def social bu rëy boo xamante ni wax sa dëgg na yàlla ay millions la buñ la wanoon rapport Vidéo Savane da nga xam ne ñii xaalis bi nu am demuñu uti ji pour ni may nu pour ni may waat ka mais dañu am bi nuy door a ibbi dañu defoon suñuy carte membre association bi di cotiser chaque mois bu nee tey ji exemple diine ji soxla na nangam ni jaar ko si Vidéo Savane jàppal ne ay membre Vision 129 noo yëkkati seen poste pour loolu am waaye na am na ay bon volonté yoo xamante ni bi nu gisee Vision 129 di liggéey rafet noonu la ñu jëlee seen alal tamit ñëw fekk si ñu jàppale ndax euh, waxta si ma bi xel bi laay jëmeel wala tafarraxu boobu dafa làmboog njabootu Seydina Limaamu ak diine Seydina Limaamu gii lépp lu fi nit di liggéey rek ñëpp war nañu see a fekk si moo waral nag suñuy demee suñu propre moyen waaye nag am na ay bonne euh, bonne volonté yoo xam ne noo ngi dugg si mbir mi pour jàppale nu daal sang bi euh, kàddu yi matali na lan mooy kàddu gu mujj gi. waaw kàddu gu mujj gi euh, mooy ni ma ko waxee parce que dañuy ñaan yàlla lépp lu ñu sumba ñun si diine Seydina mu gi mu matale parce que 1929 wax naa la social première année bi ñu ko defee danu joxe 10 tonnes ceeb deuxième année bi mooy année bii passé def nañ di 17 euh, tonnes de riz maye maye Cambérène gi yaakaar naa dugal nañ fi 100 saaku ceeb ak 100 bitéelu duulin Yoff amul kër gu nu bàyyi parce que social bi li ko waral. mooy dañu xam ne gan yi dañuy ñëw te gan yi nga xamante dañuy ñëw ñi leen di dalal wax sa dëgg yàlla war na noo mën a am lu nu dalalee gan ndax appel buy ñëw man mën naa wax ne taalibe euh, ñun njabootu Baay Laay gi du ma ne taalibe yi mais mooy Laayeen yëpp kenn ku nekk booy dalal ay gan mu yoof di Cambérène di euh, Ngor képp koo xam ne yaa ngi dalal gan rek wax sa dëgg yàlla saw fi day dem parce que gan dañuy ñëw bëgg nga ku si ñëw nga teral ko loolu moo war a sa Savin na dem ba xam loolu jël alalam di ko def si communauté bi daaw bi ñu defee 17 tonnes de riz yi ñu xool ne matalul parce que 17 tonnes euh, ceeb boo ko mayee si dëkk te matalul ren jii ni fas yéenee nag ñaan yàlla mu motal ñu suñu yéene ba nu yéene bi nu am ñun mu ñu yóbbu ko foofu waaye sama dañee kàddu daal loolu la li siy sàkku ñaan si jullitu yàlla yëpp ba li nu bëgg si diinay Baay Laay ji yal na nu ko yàlla motali ba yàlla defal nu ñun fa nu war a yegg ni yeggal fa tax diine ji damay wax ne kenn ab tool la kenn ku nekk mën nga bay te doo sonal sa morom ñun li ñu xamee xam nga lan la mooy que lépp lu nu gis Seydina Limaamu salaay salaam daka moom ñun dañ koy taaral moo waral bu appel di ñëw ni jaay sunuy jënd sunu sëriñ ak taalibe du nu doon sëriñ nag ba ilaa yomit abat tànk sunu kilifa yaa ngi fi sunu baay bi fi nekk ñun ñëpp dañuy wékku doon ay taalibe si ay tànkam ndax Seydina Mandione dafa wane ak taalibe si kër gi ndax Seydina Issa Rouhou Laye bi mu fi nekkee sama ma Mandione defoon na ko ab taalibe ba taalibe googu nag ñun njaboot gi foofu la ñu fas yéenee jaar kon tànk xalifa bi moo ngi fi jàppale ne ñun ay taalibe la ñu doon lay bi nag ak bale bii nii kay defal sunu maam moom la ñu am amuñu leneen lu ko ëpp. parce dëgg na yàlla noo ngi ñaan appel bi ñu dëmmal yal na yàlla wàcce si xéwal yàlla defal nu si jàmm mu doon atam ndaataange mu doon appel bu neex sunu xalifa bi fi nekk yal na yàlla oyofal yan bi njabootu bay laay jéeg ñëpp saxaaba seen alimaamu yi nag ñëpp yal na yàlla wàccee teraanga ju bëri ba nu mën a teral jaam yàlla yi ñëw si appel boobu noonu noo ngi ñaanal télé bi bu Euh, Lou'Bess TV incha allahu rabi si kaw si kanam. ba tey euh, du ñu taxaw benn arrêt dañuy continuer ba tey ci waaja waajal 142e anniversaire wooteeg Seydina Limamou ak waa vision 129 bi nga xam ni tey dañ ñëw kër xalif bi rien que pour euh, def seen nettoyage ñu ngi fii ak benn soxna soxna Mbathio jóge ba Yoff bokk ci vision 129 soxna si lan mooy taxawaayu jigéen ñi ci vision 129 ginnaaw bi ñu la nuyoo. waaw maa ngi lay fay ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonentam bu tedd bi sangu sanga yi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ñu ngi ñaanal suñu xalifa bii nga xam ne moom lañ toog fii si buntu këram muy Dudu Maxtaar yàlla na yàlla yàggal ka fi yàlla na yàlla wéral ka waa suñu taxawaay si vision 129 jigéen ñi mooy ànd ak suñu ay góor takk suñuy ndigg ba mu dëgg rek fas yéene liggéeyal yàlla liggéeyal Seydina Limaamu jigéen nag bu ñu nee jigéen moom ñu nga ca waañ wa ñu nga ca lay ba ñu ngi ci fépp góor ñi mën ñu ci benn yoon fu góor ñi taxaw rek ñu nga fa taxaw jàppale leen pour waajal wooteb Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam bi nga xamante ne nii moom lañ dëkkmal ñu ngi commencé fële ci yoof lay nañ ka ba mu baax génn nañ ci mbedd bale nañ defar nañ ba mu baax ñëw nag fii nga xamante ne nii mooy kër xalifa bi fa séene kaa defar ba mu baax ngir waajal wooteb Seydina Limaamu bi gis nga jigéen ñi ànd cee góor ñi ñu taxaw pour defar ba mu baax. waa soxna si ku ne ku ne góor ni jigéen jigéen ñi ban euh, taxawaay lan am fii nga xam ni mooy euh, euh, vision 129. waaw jigéen ñi vision dañu am ay góor am ay jigéen xam nga jigéen ñi nag dañuy ànd ak góor ñi ci liggéey yëpp bu dee lay ba ñu nga ca bu dee mbale ma ñu nga ca ca waañoo tamit ñu nga fa ndax buñ nee góor ne jigéen jigéen ñi am nañ si solo bu baax a baax a baax. ndax commencé nañ fële nga xamante ne nii mooy euh, Yoff fa lañ commencé liggéey bi pour waajal woote Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam bi lay nan ka génn nañ ci mbedd yi bale nañ ba mu set tey ji ñu ngi fii si kër xalifa bi du Maxtaar fa séene ka bale lay ka ànd ceeg vision 129 ngir waajal woote Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam bi soxna si bëggoon naa xam aussi ban question ba ban euh, message maanaam kàddu ñaax nga am pour jigéen ñi nga xam ne waaw woote moom jigéen ñi di ñaaxaat ndax defe naa ne loolu sax ànd ñu wax ka pas-pas bi nga xamante ne nii moom la ñu war a ñëwee mooy set ak sell la ak yiw surtout ndax jàmm lay dinaay dégg si mag ñi ñuy faral di wax ne comme bére bu ñaanukaay la boo setulee sax waroo faa ñëw te ku fay ñëw war ngaa defaru ba baax ndax foo xamante ne da nga faa yaakaar yàlla war ngaa defaru ba boo demee fekk fa yàlla tey jii si greffage yi ñuy muur boppa yi di sol yëre yu jot defaru daal ku ñëw ànd ak njàpp set te sell la daal loolu daal la jigéenu axlu laay war a woo ci aji boo daaye laayu sëy naa limaamu bi waaw ba tey ñu ngi poursuivre téléspectateur ñu ngi fi ak jëmm joo xam ne kenn dootu ko laajte ci diine Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam am taxawaay bu am importance nag fii ci Cambérène 2 muy oustaz Mame Ndongo bu rajo Jamalaay FM ñu ngi lay nuyu oustaz di la ziar di la jox sa wàccuwaay oustaz nan ngeen di waajale appel bi fii. waaw Maguette maa ngi lay nuyu di la ziar baax ak lu waa Lou'Bess TV yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuy ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi leen di ñu ngi suivre di ànd ak yéen ci liggéey bu tedd bi. ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax baax di ñaan xalifa bi mu yàgg fi te am wér ak njabootu Seydina Limaamu yëpp. di am mbégte it ci li nga xamante ni tey moo fi xew tey di vision 129 ci liggéey bu rafet bi nga xam seen taxawaay ñoom ak bëgg gi nga xam ni bëgg nañu ko seen maam ak jàppale gi nga xam ni bëgg nañu ko jàppale seen maam ci woote bi tax na fépp fu ahlu bayti nekk rek fekk nanu la fa ak seen taraangay bopp def ko ngir seen moyenu bopp lépp rek ngir xam ni lii nuy def seen bopp lan ko defal kon nu ngi rafet lu jëf jooju di leen ziyaara ñoom ñëpp di ñaan yàlla fay leen bu baax lépp luy seen bébét ak seen bëgg-bëgg yàlla na sunu borom defal leen ko muy waa Cambérène 2 yëpp kontaan nañu ci lii ndax wax dëgg yàlla lii moom ku ko def diine ji nga ko defal ñoom ñi ko def seen bopp lañ ko defal ndax ñii seen baay ñii seen maam lañ ko defal waaye buñ ko defalee tamit Cambérène 2 lañ ko defal kon képp kuy kilifa ci Cambérène 2 rek bég nga ci daayira Muhaajiruuna mi maire yi bég nanu waa daayira sopp lu Ahlu Bayti Rasul bég nanu association liggéeyal maam Seydi Cambérène 2 ñoom ñëpp bég nanu kontaan nañu ci lii ñu ngi ñaan yàlla mu may nañu yu bari ñaanal xalifa bi appel bii ñu dëgmal yàlla suñu borom defal ko ci ndam lu rawee njortoom di kontaan daal di kontaan lool te di bëgg rek di wax ni lii moom ñu ngi koy rafetlu ndax wax dëgg yàlla euh, day wane rek ni dëgmal nañu bis bis boo xamante ni yamul ak benn bis si ñun ndax ñun ñëpp li nu maam li maamu salaa salaam lebal mënuñ ko ko fay kon dañuy ñaan yàlla rek lépp lu nu man ren bu déwénee ñu man lu ko ëpp di ñaanal laayeen yëpp yàlla suñu borom may na ñu fekk bis bi ak jàmm ñaanal sunuy sang yëpp yàlla may leen ndam ci barka Baye Laye ak Seydi. kon bi batal na ñu ngi lay jaajëfal. kay maa leen di sant baax di gërëm di ñaan kër gi yàlla ko yàlla yokkati dëgëral. parce que ñoom lii ñuy def day ah, mën naa ni seen waajur lañ koy defal di liggéey boo xamante ni ëpp na mën naa ni su ma juumul ëpp na juróom benn wala juróom-ñaari at chaque année ñooy ñëw fii di liggéeyal seen xalifa di liggéeyal xalifa bi di ko defal lii mu nekk loo xam ne ma leen bi bis bu nekk rek. nit ki booy defal sa waajur ah mooy loolu ñaanal la rek waaw liggéey bu rafet daal la def di si sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanal rek yàlla dafa leen jàmm dafa leen sutura waaw loolu daal lan su doon waaw parce que bis chaque année ñooy ñëw indi seen i matériel seen doole indi seen xaalis boole ko ak pas lay koñ bi di ko nettoyé lépp loo xam ne soxla nañ ko rek ñun ñu koy defal wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax jërëjëf. soxna si Laye Mamadou Makhtar maa ngi lay nuyu. laay laay maa ngi lay fay. Laye Makhtar soxna si ñu gis ni da nga jógee yoo fa ñëw Cambérène ci nettoyage bi nga xam ne moom la vision taxawal pour euh, euh, kër xalif général des Layènes ban yëg-yëg nga ci am. ah xanaa kontaan si rek chaque année danuy faral di ñëw fii mu doon plaisir bu ngand si ñun di ñaanal suñu xalif mi yàgg fi te yàlla lafal ko cat seen woote maam bi nu jëm yàlla may leen ci xéewal kenn bañ a yàlla may leen ci ndam ci barke Baye Laye ànd ak xéewal. nan ngeen di waajal appel bi yéen jigéen ñi. ah ñun jigéen ñi nun koy waajal man moom ci fangu si diina ji laa bokk mais ñun moom chaque année danoo fas yéene di togg di berneel gan yi ñi nga xam ne amuñu fan dalax yooyu yëpp ñun dañ leen di toppatoo di leen jox. lu nu lekk lépp loo ci def rek bàyyilaay da koy doublé di ñaan yàlla fayal nu ko aleyhi salaam kontaan ci torop di ko teeroo jàmm ak salaam waaw kontaan nañu. ndax ñu ngi ñëw fii kër xalif bi fekk fi ay jeunes yoo xam ni ñoom dañ initier chaque année ñooy peinture kër xalifa bi ñu ngi fi ak benn jeune sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di wax laay Maxtaar. Mamadou Maxtaar sëñ bi euh, lan mooy tur bi ak lan moo waral initiative bi. man Abdou mbay laa tudd di sëtu Issa Mboup man yàlla dafa def man bàyyi laay rek laa gëm gëwma ku dul limaamu sallallahu alayhi wa sallam gëwma ku dul limaamu yonent yàlla Issa maam John maam Babacar Baye Ousseynou mooy sama lépp man Bas doomu Serif mooy sama sëriñ moom laa jox sama lépp maam Seydi di nuyu waa Cambérène yëpp di nuyu waa Cambérène di nuyu waa yoof Yoff samay nit fa samay nit ak waa Cambérène samay xarit samay mag samay papa samay yaay di nuyu ñëpp di sant yàlla di julli si limaamu lii daaw ñëwoon nan yeesal kër gi mais yàlla dafa def appel amul kër Baye Ousseynou tamit daaw yeesaloon nañ ko ñu ngi fay waaj a dem suba ñun liggéeyal limaamu rek bàyyi laay rek moo ma ñor man limaam moo ma ñor dara ñoruma limaamu moo ma ñor si barke yàlla yàlla daf ma booleeg bàyyi man bàyyi laa gëm lu ma am su ma amoon ay milliards tamit dama koy def si diineeg limaamu gi ay milliards su ma ko amoon te gëm naa ko incha allah dinaa ko am su ma yàlla teralee fu ma mën a weexal si kër limaamu bërëbu limaamu yi dinaa dem weexal ko su ma mënee jënd samay nag samay berneel indi ko jox ko jaam yàlla yi jox ko saabak limaamu yi di sant yàlla di sant waa Cambérène di ko waxaat di sant waa Cambérène di nuyu ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu tamit sëtu limaamu yi sëtu limaamu yi su may nit lan ñëpp ñëpp di jël nuyoo bi di ko jox maam Seydi doomu Baye Ousseynou mu joxal ma ko ñëpp su ma limee damay juum ñoom maa Ablaye ñoom gaynde ñoom cawlaay ñëpp cawlaay suma yaay la suma xarit la gëj ngeen gisante mais moom suma lépp la su ma gisee day daw naa ma nooree ni da ma bàyyi ma ne ko yaay booyu duma la mos bàyyi kooku suma lépp la suma yaay la di leen nuyu. kàddu yi matale waaw maa leen di jaajëfal di wax ni ñun ñu ngi fi rek chaque année bu dul sax appel ñu ngi ci kër Limaamu fépp fépp jàmmalaay fii. yoof kër Serif fépp ñu ngi fa di liggéey di liggéeyal Baye Laye te xam na ni moom mooy mu Muhammadu limaamu mooy Muhammadu Baye Laye mooy mu Muhammadu limaamu soo àndeek moom dalay aar aar la booy génn booy ñëw mu aar la te man Baye Laye laa gëm te incha allahu rabbi yàlla defalaguma ko sama taabu góor chaque jour damay wax baaylaay Laye laa koy tuddee limaamu laa koy tuddee sallallahu alayhi wa di kontaan nag di ñaan yàlla jàppale ñu ñu dugg si appel bi ak jàmm ak salaam di wax ni sama moroom yi xale yu ndaw yi nanu yokk seen yar saab ak limaamu day yaru nanu yokk seen yar yaru ndax jamono ji léegi dañuy wax waaye xale yi seen yar dafa des nanu yaru bàyyi yu bëri nangu liggéey surtout ñu dem liggéey saab ak limaamu day liggéey du soxla dërëmu kenn ma koy wax xale yu ndaw yi nan dem liggéey ñii dem jàngi ñii dem jàngi alxuraan walla ñu jàngi école liggéey dafa baax si ndaw ndaw day liggéey yenn yi topp rumbaxloo yooyu amul sens nanu dem ñu jàngi dem liggéey di gërëm ñëpp di gërëm sëtu limaamu yëpp du ma lim boo limee da ngay ju man sëtu limaamu ñëpp samay sëriñ lan ku ma gis dama lay wormaal jox la sa cër xam ni sëtu limaamu nga di wax ni yàlla nañ si yàlla dugal si appel bi ñu dugg si jàmm si barke limaamu dugg si si jàmm ak génn seeg jàmm ñu dem seeg dal dem seeg yar di leen gërëm yéen ñëpp di gërëm waa ñi fi ñëw doon lay ñëpp di kontaan si yéen bu baax di ñaan yàlla na yàlla jàppale si barke Baye Laay. waaw téléspectateur yu ñu suivre ci euh, Lou'Bess TV lii la leen indiloon tey c'est spécial waajal 142e anniversaire wooteeg Seydina Limamou ñu àndoon ci nag ak ah, vision 129 dégg ngeen ni Chérif Pambay wax dégg ngeen lii oustaz Maam Ndongo wax waaye tamit dégg ngeen ni intervenant yi wax kon nag ñu ngeen leen di ñaanal jàmm ak jàmm ak appeluk jàmm.